waaw non no non yaa yaa am na benn waaye sax ma ko posé na ma sa état santé sa état de santé xanaa moom dama dee ba sonn man boo gisee génération bu ñëw ma ànd moom c'est parce que je naturel donc amul problème d'état santé état d'état de santé ou quelque chose comme ça donc jusque c'est une décision bu ma jël la preuve sax génnoon naa sama licence boxe professionnelle pour mën a participer aux Jeux olympiques yi di ñëw yëpp samay ambition la woon donc je sais pas bu ñu la teree bëri da ngay bàyyi bëri dem ba fii <laughs> j' espère que da ngay bàyyi tout ce tout ce sport mais pare woon naa sama licence boxe professionnelle pour commencer comme ba may am 18 ans ba léegi maa ngi boxe am naa expérience boxe donc bu may 18 ans Xaarim Ndiaye moo ñu yoroon xam nga liggéey nañoo aussi euh, Bolle ak Max récemment maa ngi liggéey ak euh, euh, Kanji liggéey naa ta coach Camara donc bëri na coach yoo xamante yor nañ ma. dem naa aikido def naa foofu self défense maître Dame Seck fii Leclerc ak beneen beneen boxeur bu tudd Max non j'ai pas mal de d'expérience sama carrière box donc nekk na loo xamante ne aussi mënoon naa ci progresser man xeex xeex waaw mën naa ne je sais pas parce que euh, mës nañ moo wax sama maam laa doon ci ci bëre c'est un boo xamante ne donc il fait partie dans les gens des anciens yoo xamante ne xam nga mooy des des familles royaume quoi voilà jox na ma histoire yi mel noonu donc esprit vainqueur boobu moom mooy ñëw nekk ci ku nekk ci ak ku koy kuy jël relève bi comprendre nga mais euh, man je me souviens plus de ça que xam nga self-made man la damay jóg pour you know pour ñafe sama life egg au niveau. donc mën na nekk accidentellement je sais pas xamoon na ma koy jugé mais daal fexe naa ba dugg si daal te bi may départ di bëre parcelle amul mbër man Xaadim Gaye Malick Matraise ñooñu sax xamoo leen taal Gaynde affaire yi ñoo fa nekkoon daam xam nga Neka Mathieu Pereira gars yi ñoo fi nekkoon Jean xam nga ñu topp ñoom Baboy dem ànd ak ñoom Pikine entraîné pour jàng bëre ñu ñoo ci génn daal ñu ñoom ñu egg au niveau mais du concurrent ma ak ñoom parce que on est tous ensemble mais moom bu dee fétiche moom dañ lay proposer affaire yu bizarre yooyu man j'aime pas j'aime pas du tout que sëñ Moussa daf ma koy tere daf ñuy tere ay fétiche affaire yooyu noonu moo tax du ma ko def quoi récemment rek ma combat yi passé wax nañ ma naa suul ginaar buy dund ma ne def loolu parce que du ma genre parce que man ma defee loolu après psychologiquement daf may day jël sama daf may dama koy xalaat quoi. amul bëri ak lépp laa ceemale lenn jaraloo ma mooy suul luy dund affaire yooyu wala des choses affaire des trucs